salaamaaleykum mbokk yi maa doon def vidéo bi léegi di wane fii état bi ñu nekkee gis ngeen nit bu dox sax gisoo leen ko te instant yi cas bi day gën a yokk ñun ñu ngi nii ñun quelques sénégalais ñoo fi nekk. instant yi man possibilité bi ma am nii sax génn sama biir yi sax am na ñoo xam ne uñ ko dañ leen tëj si seen biir université yi. génn sax munuñu ko lekk yi leen di jox sax dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko planifier par horaire léegi man damay gis yenn propos nit ñi naan ñu ngi ci jàmm gars yi nit ñi waaj a évacuer man gisaguma loolu yëpp te man maa ngi nii fii laay dund fii laay dund ñi ngi nekk di dund lu metti lu méttee méttee métti waaw loolu nag laa buggoon mu leer instant yi ñun supermarché bi ñuy dem sax naan ñu ngi def di wut ay ravitaillement risque bu métti la risque bu métti la essence yi dëkk bi dara dawul amul oto amul dara parce que gars yi xam nañu risque bi ñu nekkee léegi nag bu fekkee nit ñi dañuy toog Sénégal naan ay nit ñi ñu ngi ci jàmm Sénégal xaw ma la nag lan c'est parce que dañoo nekkul ci milieu bi man mi nekk ci milieu bi nag man maa leen ko mën a wax xama sama yére gi nii fii Wuhan la Wuhan Wuhan laa nekk waaw dama bëgg mu leer fi bopp ñëpp te man maa nekk fi nga xam ne fii la virus bi ëppee. donc ñi fi nekk naan nit ñi ñaa ci jàmm c'est parce que dañoo nekkul fi affaire bi nekk waaw loolu laa bëggoon nit ñi xam te ñu bàyyi nekk fii naan ay di def ay rumeur yoo xam ne wóoru leen boo leen bëggee lu leen leer da ngeen laaj ñu koy dundu waaw te essence yi denrées alimentaires yëpp yokku na yëpp yokku na te essence yi supermarché yi seen approvisionnement léegi mu jeex ñun déjà benn danger rek dafa am mooy que ñu ngi génn di nekk en contact ak nit ñi bu ñu demee supermarché te mënuñoo toog suñu biir kër yi te virus bi mën na la contaminer ci n'importe quelle façon imaginel ñaanuñu ko yàlla nit am virus tufli bu tuflee nga dëgg ko sa dàll sax nga dugg ak moom sa biir néeg yaa ngi en danger xam nga léegi nan lañ nekkee si jàmm nan kan moo nee ñu ngi si jàmm kan kan ma dégg ñu ñi di wax ay waxu ay renforcement financier ñun soxlawuñu xaalis ñun ku ñu jéem a dimbali ñu génne ñu fii yóbbu xaw moo xam fu mu ñu yóbbu même bu ñuy mettre en quarantaine ñu mettre ñu ko mais nañu ñu génnee yóbbuñ ci parti bu safe boo xam ne ñu dinañ mën a nekk ci jàmm waaw loolu laa laa bëggoon mu leer wasalaam. salaamaaleykum mbokk yi maa leen di ziar bu baax a baax man doomu Sénégal la comme yeneen doomu Sénégal yi nekk Chine <coughs> waaye man dama nekk fi nga xam ne mooy ville bi ñuy wax fa la virus bi nekk waaw léegi man damay dégg yenn propos yi wax nii. que ñun ñu ngi si jàmm ñu ngi dund xawma lan ka nekkuñ ci benn danger affaire yooyu daal mais dama bëggoon andi ay leeral rek instant bi nii maa ngi dox 18 a jot dafa lëndëm nii rek mais gis ngeen mbedd bi amul kenn ku ñeme dox amul kenn ku ñeme dox lii yëpp lu ko waral mooy nit ñëpp dañoo ragal contamination léegi lii nii ku ci nekk est-ce que nekk nga ci jàmm est nekk nga ci jàmm lan laa bëgg ñu wax ma gis nga kii ni masqué kanamam gi ci kaw ba ci souf ah gis nga kii ni masqué kanamam ci kaw ba ci souf nit ñi kenn ñemewul dox man instant yi génn bi ma génn rek bi bi moy première fois may génn depuis 3 jours té instant ci sama buntu université la nek ya may dégg donc man pour man dañu wara bay yenn propos dalal xel yi ñu di wax naan ni étudiant yi ñu ci jamm ak yi démé non ñun nekkun ci jamm bu ñu nekkoon ci jamm dañ koy wax man au début sama papa daf ma laaj manako jarul ngay am leen looy tiit di ko ragal mais instant yi dama sës wax dëgg fa yàlla parce que mënuma comprendre lépp gars yi dañ koy jël di ko maslaawee wala di ko xoolee seen intérêt bopp alors que ñun instant bi ravitaillement yi ñuy jënd sax risque la parce que bu ñu demee ci supermarché yi ñu ngi ñu ngi nekk en contact ak nit ñi te supermarché yi instant yi prix yëpp dañoo grimpé lépp a cher lépp a cher donc ñun kan moo ne ñu ngi ci jàmm kan kan moo ne ñu ngi ci jàmm nekkuñ ci benn jàmm maa ngi nii di ko wax waaw te bëgg nag ñëpp jot Wow. Oh.